Permettez-moi de profiter de cette tribune hautement symbolique pour vous saluer en vos grades et qualités, titres et vous remercier de l'opportunité que vous m'avez offerte de me prononcer sur le thème intitulé Le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes. Madame Ma, mon plaisir est grand et je cours présentement en tant qu'artiste de développement et militante convaincue du droit humain de partager avec sur le PSE et l'autonomisation des femmes. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, vous avez compris que pendant des siècles, les femmes ont connu de longues souffrances qui ont comme nos mariages forcés, infanticide des filles, violence morale et physique, discrimination face à la scolarité, à l'emploi, etc. En faveur d'un environnement international plus sensible à la question du genre, depuis la quatrième conférence mondiale sur les femmes et la plateforme d'action de Beijing en des efforts importants ont été faits pour donner plus de pouvoir aux femmes. En effet, avec la ratification de plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux de promotion du genre et la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementé relatif à de l'autonomisation des femmes, occupe une place centrale dans les politiques publiques mises en œuvre au Sénégal. En fait, en se dotant d'une stratégie nationale d'égalité et d'équité du genre et en inscrivant en lettres d'or l'empowerment des femmes dans son document de référence en matière de politique économique, sociale et culturelle qu'est le plan Sénégal émergent, les pouvoirs attachés leur, ont affiché leur forte ambition de faire jouer à la femme sénégalaise un rôle capital dans l'effort de construction de l'émergence. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, L'autonomisation s'entend du processus consistant à donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle. Elle est en pour édifier les économies solides, de réaliser les objectifs internationaux de développement et de durabilité et d'améliorer la qualité des vies des femmes, des hommes, des familles et des communautés. C'est à ce titre, Madame le ministre, messieurs, le président s'est attelé pour faire du plan sénégalais émergent le document de référence économique. En effet, l'émergence attendue à l'horizon 2035 passe aux yeux des autorités politiques que nous sommes par la participation des femmes à la prise de décision renforcée par la loi sur la parité qui est en train d'être mise en sociaux de base, eau, électricité, piste rurale, équipement, etc., à travers les interventions du PUTC et la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant qui constitue la gratuité de la césarienne et des soins de santé des enfants de 0 à par l'agence de la couverture maladie universelle. La amélioration de l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant rendue possible par un volume important de sociaux avec des bourses de sécurité familiale, le renforcement de la protection sociale, notamment pour les femmes les plus vulnérables, la promotion de l'égalité des sexes en tant que droits humains en octroyant les mêmes statuts, droits et responsabilités à l'homme et à la femme, le renforcement des capacités des institutions et des collectivités locales, prier pour s'en féliciter, Madame la ministre, ont des organisations de défense des droits humains. Mesdames Mesdames et Messieurs, chers invités, vous comprenez donc avec moi que du chef de l'État, son excellence le président Macky et de ville de Trappes. Je vous remercie de votre aimable attention. waxtu des deux minutes ci langue Kocc-Barma dama am mbégte lool de yàlla xam na ni am nañu tuuti tiis bu dal ci ñun muy sunu sœur Khady Niagne bi ñu dëgg bii jóge fii mais mën naa combat de bataille la daanoo parce que toute la journée démb ku jot Khady Niang ci préparation quinzaine nga ko jotee aaye ba nag moo wax wa bashiri saabirina alladina ida asabatum musibatum qaalu inna lillahi wa inna ilayhi ki ko sañ ki moom ñëpp ki kilif ñëpp nga xam ku fi dem moo la fi jële moo ko jël ñu ngi ñaan ya na yàlla yeesal yërmandeem te tas ñu ci barkeel ndax xale ko àddina teg njabootam ngeen fi bàyyi ci fii àddina mu teg ko ma am mbégte parce que àddina noonu la da ngay am lu la la xari am mbégte loolu mooy àddina am mbégte loolu recevoir Mariama Sarr ci département bii nga xam ni sama c'est la région de Cheikh Seydi Hadji Malick c'est la région de Cheikh Issa Diène Lamine c'est la région de Cheikh Ibra Fall c'est la région le berceau religieux le plus religieux du Sénégal recevoir ci sama sœur Mariama Sarr muy jàmbari Fatou Tëdd ma miinante moom ci keppaaru président Macky Sall mu uuf njaboot yi uuf jàmbaar yi uuf néew doole yi uuf famille yi uuf laago yi uuf tey koy wax nangoon nañ ko yow mi ko commencé yàlla la yàlla jàppale nga eggale ko ak alhamdulilah rabbil alamin te loolu lay def parce que ku deful la la war doo am la la war ñu koy wuti doon ku def la la war am la la war yàlla la yàlla sàmm maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum. waaw jërëjëf waay.